salaamaaleykum àdduna wërngal këpp bi seetaan Tektal TV ak Tektal TV Sénégal euh, Cheikh Talif ñëw ak yéen ci spécial loo xam ne que dina soxal jamono ji Tektal TV nag nii ñu ko bindee T E K T A L nga def espace TV nga abone foofu bés furus bés kolos bi doo ci fay dara nga defaat T E K T A L def TV ba pare def espace Sénégal Tektal TV simple Tektal TV Sénégal ñaari benn lan bés furus bés kolos bi doo fay dara. émission bu ñëw léeg-léeg day njëkk dugg fii léeg-léeg mu njëkk dugg fële benn bi la bu dee ci Facebook bi page Facebook bi Tektal TV l'officiel tey nag ñi ngi dalal daanaan boo xam ne que Sénégal ñu bari desoon nañ ko comprendre mais man yàgg na di waxtaan ci ay at ñu toog suñ ruq di waxtaan ci boobu mbiru ñi ñi ni nekk ci kaso yi la ñuy waxtaan ci yu bari ma xam li nekk ci bopp bi ak tamit alxuraan bi nekk ci bopp bi yooyu yëpp ma xam ne kon kii bopp kese la macha allah mu doon sama xarit boo xam ne que mën naa ne sax euh, mën maa ko wax mu firi normal ndax kersa bi dox suñu diggante mais loolu duñu arrange dana bëgg mu tàng jër duñ ci bañ sax bopp buñ saañu nger mooy kan Mouhamed Fall alias 10 000 problèmes 10 000 problèmes nag lan indi ci Tektal TV kon abonné leen abonné bi doo ci fay dara bés furus bés cloche bi émission bu ñëw nga am ko 10 000 problèmes yaa ngi ci Tektal TV sa télé te incha allah da nga Wagwan, salam alaikum, salam alaikum. Je m'appelle Mohamed Anfal, alias Demi Problème, toi, ambassadeur Badoy, de tous les Sénégalais, Sénégalaises. Wagwan, Roy Chando, Big Up Dansal, yaa ngi Tektal TV, 10000 matter muy Tektal TV, rang muy Tektal TV, kunkang, nay gaaw. boo déggee nag Tektal TV boo ko déggee saaf di Tektal maanaam mooy junju. junju mooy cax. cax mooy jës bu yàlla nag dafa soxla bu borom xel yi moo tax mu ne si alxuraan yaa ulul Seydina Albaabi ma yëm bu wër xam borom xel laay waxal nit ki nag bu bu la junjee da nga war dégg. borom di la bëgg a bàyyi yow di la ñaanal yàlla. amiin amiin li ngay def rafet na. nit ñi bëgg nañ la ñu ngi lay déglu parce que dëgg rek mooy dëgg. inna diina indallaahi lislaam jaar xaq yàlla dina leer lépp mooy si barke alxuraan. macha allah kontaan nañu bu baax kooku mooy 10 euh, 000 problèmes lan dalal ci Tektal TV waa extérieur yëpp ñi wéet di leen wax ne euh, lenn lan bëgg a wax. Euh, kan mooy Mouhamed Fall dix mille problèmes carrément Mouhamed Fall fan la juddoo fan la jànge alxuraan la jàng nasaraan la jàng anglais la jàng daara la jàng école la jàng wala lan ak ba mu jàng dafa mokkal wala dafa wàcc wala dafa miin kan mooy Mouhamed Fall waaw Mouhamed Fall je m'appelle Mouhamadan Fall dama mhm. turu artiste ñu gën a xamante ci dix mille problèmes pour jàllale yenn message yi mhm. bon ma juddoo Géejawaay. Géejawaay waa yoroo Saint-Louis. balaa mm. jàngee. Saint-Louis Saint-Louis ah? parce que sama mère. Mm. yaay man Senghor moo ko yóbbu Saint-Louis. Mm. waaw parce que ñoo leen yóbbu ak yeneen sama yeneen mbokk ma nekk nag waaw nekk nag ak Géejawaay nag jàng màgg fa ñu toxoo dem Saint-Louis. laa jàngee sama li ma gë li ma gën a xam wax yàlla mooy. ak alxuraan laa gën a laa gën a vidéo parce que xam nga ndar rek boo fa mm. nekkee da ngay jaar daara da ngay mm. jàng par force quoi parce que mm. nit kenn loo mën a mën tamit loo mën a xam da nga war a jàng alxuraan waaw di ñaan jàng daara maa ngi doon daara nekkoon naa daara sëñ Youssou nekk naa si daara Goulam Rasoul jaar naa daara bare jàng naa si jàng da ngaa wàcc ah? non man du ma wàcc alxuraan moom nit ko taxaw ni wàcc na alxuraan tamit mooy loolu bu kenn mënu ko jeexal. <laughs> kenn mënu ko jeexal waaw waaw. non mën a wàcc di nga euh, baqara ba minal jinnati wan naas. teel na ko def sax tànqal lan teel a wàcce parce que da wàcc sax ñu delluwaat la. mais dañuy gis yow lépp loo wax da mën a indi aaya teg lu bari njàng boobu parce que da gis fii nii temps bi ñoo xam dañuy jàng ba bàgg baqara ba wàcc alxuraan. Mhm. boo jëlee kaam bi jox leen ko ni ko génne ma saar temps si biir kàng bi du la ko génne mooy njàngum gumba mooy njàngum kon donc ñoom ni ñuy accéléré alxuraan bi maanaam ni ñu négliger diinul islam hmm. maa ngi gis nga invité benn benn nitu yàlla quoi mu yor si affaire de ah. coronavirus bi hmm. parce que nee noonu loolu mooy bës bi hmm. instant bi euh, faire boo xam te ni te balaa la man lenn moo a metti quoi lenn moo ma metti quoi ah. la mooy ndayu bu benn kilifa diine waxee wax nit ñi Sénégal yi dëgg ñu mel ay muuma su benn xol ak franc-maçon waxee ñëpp appliqué quoi. su benn xol gurdien waxee ñëpp appliqué. xam nga dëgg yàlla moo ko moom parce que ëllëmaa ci almas kàlla fi mu mm-hmm. a gëm li ngay def quoi gëm ñun danoo xëccoo ay leneen. ñu mm-hmm. ñàkk fay dëkk bu nekk ak sa religion. Mm-hmm. ku nekk sa concept. ku nekk ni nga jàllale sa message ku nekk ni nga jàllale. man de bu may faral bala may aw damay aw si li nga xam ne yàlla moo ko bind si afra mooy ñitu diine l'islam feebar am na te feebar yi xoolal balaa la na takk masque dëgg la. nan tax dëgg la mais loolu mais loolu noonu loolu. loolu noonu instant bi nit ñi doon koo wax a wax ba dañuy tëdd sax dénk <laughs> dañuy tëdd neew sax di gént ay masque ay omo ay gel <laughs> kon ñun waroon dépassé sax stratégie yi quoi ngir yàlla fekkee dama juum si leneen eh, tey bi li ci garaaw mooy gelu tubaab yi moo gën suñ sel yi seen or gel gën suñ or seen saabu yi gën suñ saabu yi mais mais bu dee gel yi ah, bu dee gel bii mhm. nice quand ah bu dee omo bi. Mhm. nga bu dee musuwaar yi. loolu tubaab na nga ko def parce que tubaab bu demee duus du laabu neel benn. <laughs> benn tubaab jongul. tubaab sobe la. ñoom ñoo war a waaye raxasoo omo. ñoom ñoo war a raxasoo kotol ak orzabet ñoom. Mhm. ñu danoo juddu sell ñu noddu suñu nopp suñu nopp yi. Mhm, li xam allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illallaah yàlla salaax yàlla falaax. qad qaamat salaat teg ci laa ilaha illallah si mberim ni seydina muhammad rasulullah salaam muhammad muhammad moom loolu léegi bàyyi balaa am na amul lu ñuy diingat mm. li njëkk li njëkk coincé état moom moo ñoom ñoo teg lii ñoom ñoom ñoo def lii ñu dañuy appliquer ci combat parce que la loi c'est pour les pauvres mm. man mënuma gëm instant bi nii ñu bëgg sol nit ñi nii takkalee masque dëgg la quoi mais nanu créer ay ay message yoo xam ne ni ay solution la yu te bi masque bi sax ki koy jaay parfois ci mbedd bi mën na xëy di wër ba kii kooku bu ko amee ba du rey ñu bari parfois mu gis ñu naan masque yi wéy bi moo baax bi moo baax parce que dañuy valoriser li ñu bëgg c'est pas vrai masque yi tey nekk Sénégal mën nañ ko job <laughs> éponge la ak morso ak sagar wala waaw. du dara mais ñoom nag ñooy valoriser Masamba ni Masamba baax. waaw ah. ni Mademba moom bosam baaxul. Mm. parce que ma Mademba àndul la ñun Masamba moom benn gànna bi dem rek mais bu joxe ko da koy jëm a xeex. Mm. lan moo tax. Touba jox amul turu Touba sëñ boobu li ma damay intéressé quoi Ibrahima Keita Ibrahima Keita borom butéel bi mooy li mu doon wax ci coronavirus maa ngi koy di ko ziar mm-hmm. di ko ñaanu yàlla di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla doolal ci barke alxuraan parce que li leen tax a mooy ñoom mm. moo tax yàlla ni leen wa sayda allahu annahu laa ilaha a huwal malaikatu wa ulul ilmi qaima bil qisti laa ilaha illa huwal azizul hakim inna diina inda allahi lislaam diina lislaam yàlla da ko wàccee yàlla bi mu wàccee lislaam wàccee wàccee bi mu wàccee lislaam di defar àdduna bi tàggul si nit. tàggul kenn man la mooy ndayu man la la mooy ndayu. Mm-hmm. bu tubaab waxee ñu gëm ko. Mm-hmm. bu nit yi dina waxee ñu wedd ko. ñu wedd ko te dañoo xëy suba nit tëj nañu jàkk yi. Mm-hmm. avant ma ñëw foofu sax bu. dama ñëw si moom si li mu wax si Ibrahima Keita. di ko bëggee di ko di ko nuyu di nuyu tamit soxnaam. nuyu tamit waaw nuyu tamit Tektal TV. rang rang muy gaaw sa sa compte Instagram bi nan la demee. kon Instagram da ngay bind dix mille problème. dix mille problème waaw ngeen abonné dix mille lu ñu koy bindee un ak ay ñeenti zéro. non boo defee un ak benn zéro rek di nga séen fañ entendre ak problème. déedéet am na ñu lay pirate nag pour nga ban mooy ku baax bi. waa ñu ngi may pirate nag. ñu hmm. man moom ñu ngi may waaw yàlla bu ma lekk rek <laughs> la loolu lépp garaw sax quoi. Hmm. mais hmm. Ibrahima Keita. dafa ñëw moom. moo ko déglu. bi fois mu ñëw fii. ngir yàlla la moo tax moom bu demee bu déposé ay dossier ministère déposé kat palais déposé kat feneen feneen. ne mën na faj ñun ay lu ko raw mën nañu faj. Mhm. mbir mi si yàlla la jógee. yàlla lu ma seexu ren ud'uunii astajib lakum ñaan leen ma ma may leen. mais mhm. wa maa umiru illaa li yaabudullah dañu fi wàcce ngeen ñu jaamu ko. Mhm. yàlla dafa am ñu koy ñaan à lu ngeen foog affaire bàyyi ah, du ay son moo koy génne de. maa ngi gën nag rappeurs yi gars yi di di kan ak kan ay dëmm xam nga ay ñoom Youssou Ndour ñu si ay yenaa maar yeneen rappeurs du ay son moo koy génnee son mm. àdduna la mm. nit ñi nañu ragal yàlla mm. ay waa gi Sénégal ragal leen yàlla ñun ay julli lañu ñun ay julli lañu ñun ay africain la ñun ñun bu ñu juddoo dañoo judd di ram si suuf si ah. di di maq <laughs> suuf di lekk këriñ bu ko tubaab defee dee lekk këriñ di lekk ay ceebu jàmb di man dama doon dem di sàcc ay bool dof di sàcc ay boolu taalibe jàmb yu sangu ma jël ko foxat ko lekk ko mm. benn jour benn jour mën naa lekk ceeb mbaxal daxin suppu kànja yi lépp mun naa ko boole dóor ko mais comme dul jeel maan parce que yàlla moom moo yar ay nitam mm. bu demee ba ne yàlla si alxuraan inna allaha ma saabirina maa ngi ànd ak ñu muñ way muñ yi mm. ñoo la gën a xam ne lii dana am jàngat alxuraan yi la moo tax bay sëriñ ni tekk affaire bu méttee noonu quoi. Mm-hmm. Ibrahima Keita am na solution nee na mën na faj lii la moo tax état mënuñu ko jox mënuñu ko mais na nga ko jël jox ko mu faj. na nga ko na ko testé na nga ko jox quoi man mën naa faj. wax dëgg yàlla man mën naa def lii man mën naa naaw mais dama lay bàyyi nga def li ngay def. <laughs> di la vérité mais nit ki bu mu jógee fee mu sol benn sagaram mu des moo sam parce que jullit. Uh-huh. jullit moo tubranke ndax wayefam. Mm-hmm. parce que yàlla yàlla dafa neex. Mm-hmm. te ko gëm yàlla xam yàlla doo ragal dara. ragal yëpp yàlla ndagam ñoom naafeqe yi. Mm-hmm. ñoo am pouvoir waxuma laa ñi gëm yàlla. ñi gëm yàlla. Ibrahima Keita man dama koy Keita man dama koy défendre di ko déglu si li muy wax du ko sax li mu nekk sa mbokku Saint-Louisien. Mm-hmm. mais moytu ma moytu ma. waaw jànkat alxuraan. jànkat alxuraan ñaata feebar ñu ñaata nit ay feebar. ñu dem hôpital. Mm. man temps yi passé rek yàggul. temps yi passé yàggul. sama benn copain bu tudd Papa Niang. maa ngi koy jaale di ko ñaana yàlla. yàlla may ko wér a gudd fan di ko jaay di ko jaay xol waaye Guédiawaye yëpp. Mhm. papa Niang desaan ñoo di liggéey. des na menuiserie. ah yow naa menuiserie peinture euh, tourneur en bois yàlla da ko fi jëlee te moom avant muy feebar. CTO li ma wax lu maa ngi wax lu grave de. lu grave ah? xam nga mhm. loolu léegi da ko. hôpital général CTO. Mhm. mais CTO gisul dara ñaata nit ñooy feebar yóbbu leen hôpital gis sax xeer. mais kott yow kott moo gën a ndam ñu koy sànni mais ñu sàlli fii ah. te tubaab mënu ci dara. mënu si dara. tubaab mooy jaayal fil ard. Hmm. maanaam zahabal ximaaru. fala rajat yi parce que ñoom ñoo nu gëmloo kortu ak kun takk xala ak yooyu yëpp tubaab mënu ci dara. ñoom ñoo nu gëmloo ku jàngul tubaab doo tekki. doo tekki nan delloo xel si yàlla. man de su ma naree wax wata naruma jëriñ yàlla bu ma wax. Hmm. te billaahi mën naa teg la un mois chaque jour wax te lu ma wax ba lu ma wax ba sa jaaraat. parce que loolu na la loolu xool gi fàttaloo yàlla moo koy def. yàlla moo koy def ñoom ñoo ni ku jàngal tubaab doo tekki. Hmm. ñu ni boo ko amul diplôme doo tekki. doo tekki. Hmm? Hmm. bind seen ay école job seen ay école yu mool def école baadoo la école bu la <laughs> mais daara moom daara benn lay doon. <laughs> daara benn lay ñoom seen i bible bi ñu wax nii nii chaque année chaque at ñu seet ko seetu ko. mais suñu alif laam miim zaalikal kitaabu laa rayba fii hudan lil muttaqiina allaziina yu'minuuna bi yuqiimuuna salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquuna allaziina yu'minuuna bimaa unzila ilayka wa maa unzila min qablika fi ardi wax na si law anzalnaa haazal quraan man moo tax dama gëm lii. la ma tax mu ne law anzalnaa haazal quraan alaa jabalin ra'aytahu xaashi'an mutasaddi'an min xashyatilaahi wa tilka al-amsaal nadribuhaa linnaasi la'allahum yatafakkaruun mais def na ko. xam nga gars yi dañu yaakaar ni xam nga gars yi dañu bi yàlla yi bàyyi gars yi di dee di dund bu benn mu dagale ñëpp mais comme ni ko tubaab bi waxee mondial ay dañuy duul dañuy fen <laughs> dëgg billaahi xalaqa samwaati wal ardi fi sittati ayaamin suma sawa alal arsi yàlla moo la njëkkee piégé mère yabal aadama rabbi waa aadama benn yaa naa mais demal indo yaa commune mille cinq cent diine mais ñëpp doole la feebar bi mbugal mbugal américain ay Chine hmm. Italie Amérique Japon. mais sa waaye ñii dañoo yàgg a tooñ yàlla diine dafa yàgg a sonn moo tax yàlla ni leen shahida allahu annahu laa ilaha illa hu lmalaikatu wa ulul ilmi qaaiman bil qisti laa ilaha illa hu l izzul hakim inna diina inda allah inda allah islam dañuy sonn rek balu na ñu ngi koy def jullit yi hmm. lu ne waaw lu ne waaw di xeb ak góor jigéen yi ci dëkk bi ngir yàlla may ñaan l'état le président Macky Sall Ibrahima Keita jox ko sansam li mu wax mën na ko def mën na faj lii si ay baatin boo xam jarul weddi moytu ma jànkat alxuraan lu mënu am solla démé lan bëgg ñëw nag ci euh, li waral forom alaxira loolu mooy lan moom waaw forom àllaaxira mooy fàttali ko nit ñi waa ni xalaat. rang rang ak rang yooyu lu muy signifié quoi ñoom rang. xalaat xalaat moo wala xeet parce que émission bi sax bëgguma sax wax yenn mooy. waxal lu la neex Tektal TV nga nekk. parce que bëgguma def benn émission duggal si alxuraan ba pare. Ah, di déborder. parce que alxuraan dafa wax si si laxdar yi mënu xiftul insaani loolu imaam Maalik moo ko bind quoi. mun xiftu lisaanihi minal fahshaa'i wala kalaami fabiix nit dafa moytu ko làmminam minal wax ju ñaaw wala kalaami fabiix wax ju bon. parce que am na yoo xam ne boo fa duggee rek am na yoo xam ne doo ko dugal si biir kii mais su ma nekkoon si beneen interview benn mu wax lu gën a xott ma ragla ma loolu xam nañ loolu baax. mais dama bëgg ñu wax yi may wax ni ngir yàlla Sénégalais yi. am ci solution sëriñ si ngay invité ñu ñëw di fi ñëw gis naa sa liggéey ñoom ñu ngi valoriser culture Afrique ñu ngi jël xam nga àdduna Mm. moo tax nit nit nit ku ñàkk xel mooy dof xam la mooy dof ñu ñoom dof mooy ku xeeñ ku non non dof mm. mooy ku amul ku xalaatul ku xalaatul adduna boo jëlee deux rek boo jëlee ñaar boo ko composé mu jox la leneen mm. ndax t'en fais pas mais ñun nag ñoo nangul utilité suñu xel suñu xel quoi bari doon weddi kat wala xëy na ñun amunu moyen ba pare ñun bëggantewuñu ba tey benn Ibrahima Kate ba bu nee mun na faj lii yenn vampire yi ñëw na non kii nii mais mais li feebar la wallahi asim yàlla mën na dem mën na barke mu wax benn moo benn moo benn moo xoolal mu faj àdduna bi mbiru yàlla la mbiru yàlla alimul xaybi wa shahadati wa huwa rahmaanu rahim mbiru yàlla du mbiru nit hmm. du mbiru doomu aadama macha yàlla day jël moom wax na ko day jël lu doonul dara mu def fa dara kenn mënu si dara nit nag nit moo lay defal suba ngoon su di la may ngay noos. su hmm. suba ñu xew mu la bu suba sama gàll bu duggee temps da ngay coow damay. <laughs> waa jaarul fi nga war a jaar. <laughs> Ah, damay tepp set moom nit mooy def loolu mais yàlla yàlla dafa noppi démb yàlla dafa yor ay soldaaram. nanu hmm. xam ni àdduna du àdduna tubaab. Hmm. te balaa bii lii nii man de bi ma juddoo ba léegi maa ngi soo gis lu mel ni waa Sénégal. ngi koy soo gis kay balaa bi nii. te lii sax lii bu am woon sax ma damay rus boo xoolee bàyyi jamonoy paase. maa ngi doon dal ay góor jigéen. Mm. ay ñoom sànneex. ay ah. ñoom Ndeye Ba mënu ma nëbbu ah. ay ñoom Ndeye Ba ñi nga xam ne ñoo doon défendre ay góor jigéen. Mm. ñi nga xam ne ñooy représenté xool góor jigéen parce que xam nañ affaire de lobby la affaire de xool franc-maçonnerie la. Mm-hmm. affaire de góor jigéen la. tu mais affaire de xool. Eh, góor jigéen mos ñu la kereel lool. affaire de jënki affaire de ma mënuñu ma kereel sax xam ñu ne waa kereel. borom alal yu si yi nga xam ne ni c'est temps bi dafa bare mafia. Mhm. lan mooy mais euh, jamono yi passé temps yi passé yàggul mais gars yi ñoo dem si appartement boo xam ne ñu nekkoon si appartement yi xam nga ne jigéen boo demee ba ba dorog ba dorog en siis la xaw ma xeet ngay dorogew ba dee bu wet ay borom alal seen doom yi nekk fa ay milliardaires mais tey loolu man su ma ko defoon tamit damay dee. bu ko benn baadool defoon da ngay am problème. da ngay am problème. Mhm. ay doomu Cheikh Amar ay xaw ma jarbaatam ay mbokk Youssou Ndour mais ñoom nañ si wax mbokk la ñoom nañ si wax. nit ki boo jàngale da ngay jàng lu baax yow feebar am na ah, ku nekk di mën a dëmb toog sa kër di soir rek affaire bi ay sonre bagage yi nii addu uni la astajib lakum te ñi koy ñaan moo ñuy ñàgg ñi yàgg di ñaan yàlla seen làmmiñ la mais naa nafiq yi mm-hmm. bay na ngeen noppal na ngeen xool beneen état bu dul affaire du saaw nag ay choléra bi jóge bi di final woo choléra di dul teg di jaay yooyu yëpp ay dóor la sénégalais nag moo sénégalais ragalul yàlla ragalul iblis wax dëgg yàlla moo tax mu nekk naafeq sénégalais moo bëggul ndey bokk dëgg moo ko moo bëggul dégg ndey dëgg si boppam sénégalais je te dis la vérité te booy wax dëgg sax ñu jàppale dof mais mais noonu la parce que gis naa am na benn sëriñ bu wax si benn si bëte mu ni ana cheikhul masanin man ne ma topp man ma si gars yi laay jànge si ñoom laay dégloo si ñoom laay jiite mais hmm. ñëwaat si côté jàkk yi ak jumaa yi tëj bi yow loolu loo ko gisee quoi parce que dana war a tub ba pare fi ñu tuubee mooy loolu jàkk yi hmm. jàkk yi ñu tëj hmm. ba pare bàyyi ma sëriñ si ñu cell jenn sëriñ si bokk nuy cell noppi tëj jàkk yi ak jumaa yi ba pare ñu yebal ñoom ñoom état ñu yebal ay fàqamaan yoo xam ne ñooy sensé nañu si affaire jàkk ñoo xam ma ñàkk somma ndey nit gëm yàlla dëgg dëgg dëgg du taxaw ñu tëj leen jàkk même boo ko doon fay wax parce que xam ne danger bi si nekk billaahi barki alquranu karim képp ku génn sa moo bi bokk képp ku bokk si ñu tëj jàkk ji billaahi wallaahi martaba dina la dal billaahi ak jumaa yi barke yent yàlla muhammad mm. yow jumaat yi te mais mais sis ajuma sax boo ko julliwul mais sariya wax ma sax génn mais dala rend yi xam nga la mooy jàkk jàkk bàyyi xool gi ah, fan yi xool ki ba des fois di fa dur ay diwaatul kamal mais ay ay xaqi ay allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati wala yoqudre mu ta xaqiqati ata xaadri markatil fahumi nuuri ko mu ta ko aadami saaxibil xaq rabbani sa xarit dëgg mooy yàlla nga takka fa dem soppi leneen ndax balaa xooleen ci saxaaba yi doon doon xare di reyante ñu dagg sama ñu julli allahu akbar di ko représenté tey ñi fekke nu guerre xam nu fekkee jamono xoolal franc-maçonnerie ak jaay doole jamono yi góor jigéen mm-hmm. mu wax na ko sànq sa lóot yaa salaamu an nox fi alam weex jamono yeen noox alayhi salaatu wasalaam parce que ñoom ñoo jàppoon foofu ah, si gaalu sawaay boobu bay si mbaam bi laxmaar ak alximaar bii nii bu demee ah, ba mu xool ba nga xam ne léegi lii waa ah, mbaam mbaam mi mi foo la njëkk a lekk nit mbaam moo mbaam bokk na si njëkk lekk nit si gaalu noox boobu mm-hmm. nekkaa la ay neefar yu fa nekkoon ak yeneen ak yeneen mbaam fa la xoolal xaraame yàlla bu dee mu bëgg bu nu julli bi bu ki gëm yàlla defal lii. lekkali bu lekk lii. mala ak nit ba tey bokk na nit du mala ñun la yàlla tagg. wala xadd kam naa bani aadama bani aadama kon daal dix mille problème d'accord ci ñu tëj juma ak jàkka. non non non parce que am tax. Ah. mais mais mais yow boo dee julli sax boo reculer xalaat. Mm. na nga xam ne ñun réew mi bu continuer nii ci danger lay nekk quoi. billaahi parce que dañoo war mais ñoom parce que bu sa ñan ngi du si wax parce que dëkk bi moo bari ay naafeq ay ku wax ñu jël si la yooyu noonu ay seetaan rosi mais bo mën nga wax loo neex mais nga jaar si yàlla mhm. bu li yàlla wax wax ko demee bu yi mais ban Sénégalais moomu sa xalaat daal mu sa toog ba tëj jàkk yi dëkku alaaj dëkku alaaji Malick mhm. alaaji Malick Baye moo fi moo fi waaw moo fi indi ak jàkk yi dëkku Serigne Touba moo keree Baay Faal yi jël band yi faax ni ñëpp ñu wàññi la ñëpp nekk ay julliti yàlla di neex ma rijaaloo nga dem si Cheikh Saar bu bombaar yi waa kër Jëlaani ñooñu ay sët lan vert nga dem si laay ni mhm. nga ñëw si ñeseen ba ñu xamal la yàlla nga xam maanaam nit ki nit ki da nga ko war a xam nit ki euh, nit ki dafa war a xam boppam mhm. parce que yentu yàlla Muhammad saa nee na man arafa nafsu arafa rabbu man arafa rabbu arafa nafsu xam sa bopp xam yàlla ku xam yàlla xam sa bopp. Hmm. mais lool na bu nekkul sa dënn yaa xar yéene yam. yaa xar yéene yam. Hmm. dix problème ginnaaw abone leen ci Tektal TV Tektal TV Sénégal T E K T A L espace TV. Hmm. nga abonné bés furus bés cloche bi. Euh, compte Instagram dix mille problème. voilà dix mille problème dix mille problème Instagram. Instagram rang rang muy ga muy. Tektal TV. muy. Tektal TV mu rang muy. ren muy. tegtal TV Instagram mu 10 Instagram mu 10 000 problème Instagram mu 10 000 problème ak tegtal benn lan. lépp loo gis tegtal TV boo demee mën na nga ko gisaat foofu. 10 000 problème suñ partenaire la. suñ lépp la ubbil leen ko suñu buntu parce que ku ko jàppee dof ñun jàppee nañ ko nit. fii dañ koy yaatal. parce que kuy wax alxuraan di wax aaya di wax ay ngëneel dañ lay jàpp ne euh, mooy loolu ko quoi. léegi benn rek moo wax benn affaire. xam nga da nga da nga gis jigéen bu dem seet hôpital pourtant hôpital pour wàññi la ñoom ndeysaan dañu valoriser waaye sëriñ si mm. sunu nit ñu ñuul ñun am mm. ñun ay ay Sénégal lañ quoi mm. nanu jàppale suñu mbokk nanu bëggante waxta bu benn sëriñ ñooy ni mën na def lii nan ko may chance am exploité parce que ñoom am mais ñoom mais ñoom tout am nañu ay composition bu ñu xaatee yàlla si xalaqa samwaati wal ard la wax de Mm-hmm. ma sàkk asamaan ak àll. Mm-hmm. bu dégg àll xala mooy ard. Mm-hmm. mais ard nag mais ard benn tënkuloo quoi baab ard la mais ard am na suuf ard am na tool mais amul nit tool suuf meññ ak ah. ak bi. gàncax mais góor bu am jabar amaguma soxna quoi yàlla na yàlla may quoi. amagoo non non da ngaa divorcé wala da nga mosu am soxna yàlla baax na. nekk yàlla moom mu noonu rek waaw. Euh, euh, parce que euh, bu ñu demee ba ni si alxuraan alhamdulilah la si xalaqa ñu ne maay basiran. est-ce que la may ci ñi nekk extérieur am na ñooy soxla kii de. bitim réew naan ma ku baax te ku baax ak nit ah. <laughs> xaaral mu àggale la. lu yéeme si nit. parce que mm. nit ki jigéen dina ëmb. Mm. mu dem ba biiram feeñ moom mu dem hôpital ñu seeta ko nit ki. pourtant avant muy feeñ si biir boobu alxuraan bind na kooku nan lay mel. Mm-hmm. nan la war a mel ak lan ak lan la mm-hmm. moo tax mu ne moo tax mu ne xool alhamdulillahi lazi xalaqa min al-maa'i basiran wa ja'alahu nasban wasiran wa kaana rabbuka qadiran parce que ni kooku juddu na amul euh, tout temps xam nga yàlla moo bind li mu am lépp mu ngi amalee mi nga xaq di xool Muhammad wa si naasul lu mu defaree xool Muhammad a tax yent yàlla Muhammad yent boobu nag léegi nit la comme ñun kon benn benn Ibrahima bu ñëwee ni moom mën na def lii la moo tax sëñ Tuubaa ni si man la bu shifaa yi mu ni hamdan lil mundila dana wa duwaay wa mundila shifaay wa duwaay mar amaral ibaada bi duwaati li yan foofu bi ay ne gars yi bind nañu mais gars yi ñoo jàngul te tayal te tayal duñ gës non tayal dunoo ba pare mm. dëgër ndey bopp nag wala mm. si mm. loolu mooy problème sénégalais nag te ku ne yaa xam yaa jàng yaa xam yaay xoolal wëluñu te xamoo dara yooyu sa biir bu seere sax moo ko defal sa bopp <laughs> yow ba mu ci metti ñaata ponko ñoo dugg si jël fi ba mën leen génne ñaata nit ñoo nekk si kaso fii xoolal nit mën leen fa génne mais nan waxante dëgg te yàlla moo tax xam-xam du élection hmm. xam-xam du campagne hmm. mais mais instant bi jëriñ la jëriñ jëriñ instant bi nii nit ñaa ngi feebar nit ñu xëyunu gontun ñii ñu ngi ñibbi xool Fass Mbao ñii Kër Massar ñii Jaxaay ñii Tëngëj ñu ñu feneen mais léegi heure temps ñëpp dem tëddi moo tax ma ni la loi c'est pour les pauvres. mais mm. baadoolo rek moo sonn mais baadoolo yàlla moo ko yore boppam. Mm. tey affaire bi am na ne état bi gën a jox Sénégalais yi. non Sénégal mënoo benn saako ceeb jox ko benn nee nañu benn gaaw nekk benn saako xam nga ñaari saako yow mën nga gis benn xam nañu Dakar li lo néeg yi ëpp ñu dëkk ñu dëkk ci kër yi yow dugg boo xam ni. di sept appartement nga dugal saako ceeb mais man de man de waaye mu dëkkee foofu man. Euh, dama lay jégal ceeb bi quoi jégal ko leen ko dëgg yàlla Sénégal maanaam il faut ñu comprendre ñu dëkk ci néeg yi ëpp ñu dëkk ci kër yi waaw loolu moom pour séddale bi day jafe léeg ñu koy soxla tamit bu dee xaalis la ñu bari amuñu xamuñu orange ne amuñu carte d'identité amuñu yenn ki il faut ñu comprendre ne dun tubaab yi lu ñuy def rek ñu calculer ne déjà même vingt heures bii nii nii nii nii mi ngi faagaagali kii parce que gis nañ ñoo xam ne que ñi ngi ciy bëgg a dee parce que euh, nit ki munul dëkk di liggéey Kër Massar doon wàcc vingt léegi mu wàcc quatre heures li muy liggéey bu ci amul dara bu pare nekk di jël oto yoon fekk ko ci biir vingt fekk ko ci yoon mu am problème te yi tamit am na heure boo xam ne que bu xasee jot foo na leen fii laa jëm dootuñu la wuyu ndax kenn ku ne moom borom oto boobu mi ngi war a ñibbi. fala que ñu dolli ci yërmande te comprendre ne feebar bii nii matukaay boo mën di jëlin moom mu jëli matukaayam daal. mais gars yi def loolu nag. Mm. lii nag bàyyi cent mille dama gis ñu bari ñoo xam ne ñu ngi xool que prévôt si affaire bi quoi. Mm. Euh, di di war Sénégalais yi tu yow nga moyen war a génn sa alal da ko Sénégalais yi Mm. comme tey ni sëñ bi ñëwee am xa am ata xaatam ni moom de lii mën na ko faj. Mm. ma li muy laaj lu ndaw la mu leen xaalis. Mm. mu li leen laaj ndox la leen laaj moom yàlla yàlla daal mën na yàlla mën na nekk ndax alimul xëy bi. wa shahaadati daal mbir boo ko tegee si yàlla. mu faj la. faj la boo ko tegee nag ay xool jéem xool dutee nii ndax dama jéem a seetlu waajee nii nii nii nii yàlla weer la ba baax mbaa mu weer ko. parce que yàllaa fi nekk. parce que li ñuy boo sànq ma naan da gis benn gàll boo xam ne nga yóbbu fa benn saako ceeb. Mm-hmm. te gelewaar dama koy bëgg bu baax quoi. gelewaar gelewaar. bi bi ngeen ku la neex sa teg nga nekk Tektal TV waaw. waaw génne benn théâtre bu baax quoi bu rafet. mu naan ab euh, euh, taalal loxo bu nekk boo ab yelwaan la. te asaka fam ñu koy yellool. Mm-hmm. waaw moo ne ko alxuraan ni azakaatu mi neen xool ci fuqaraay wal masaakin bu boobaa ndimbal li ñuy joxe. Mm-hmm. mais am na ñu ko gën a yelloo sax ka ñenn ñu koy jox wax dëgg yàlla baay mi am na ñu xam bi ñu sonn leen. Mm-hmm. nañu sonn temps bi xëy na ñun nag ñu ngi temps wala ñu ngi ñu ngi ñu ngi am yu bare ñu ngi gis nii. Mm-hmm. boo dëggee ci yi village àll yi ah. gis lu garaaw. ngir yàlla nanu dimbali baa doole. léegi kii daal am njariñ la ngeen bàyyi ko xel waa bitim réew ñi may wax na noonu am problème mu borom kër. 10 000 problème libre na. dégg ngeen ko. waaw benn célibataire gi nii ah. célibataire gi nii nag boo xam ne que nee pour ngeen kii nag yor na xol bu baax jàng na alxuraan d'accord na léggéey mais ku man a yor nag boo ko yore waaw daggal ko billet daggal ko yëpp dix millions ah. ba pare ñu leen bàyyi bëgguma ñamu daaw nag quoi. bëggoo ñamu daaw mooy lan. ñamu <laughs> la ah. jiw bi problème nee na daaw ñamu daaw de bu bëggul. <laughs> loo bëgg wax ko yu baax yi nga bëgg daal. ñamu ren daal laa fa laa yow. ñamu am na tubaab yu bëri yoo xam dañu nekk mag seen euh, yii ni amag ñu ñëw Afrique am fi xale bu ndaw nekk fi nekk seen jàmm di am xéwal dix mille problème nag kon li mu bëgg a wax mooy bëggoo Effenberg daal. Hmm? Effenberg bëggoo mag quoi. non <laughs> kon daal mais mais yow ban ban façon soxna nga bëgg ku mel nan. non yàlla daal mooy. non non parce que Tektal TV moom ñiy seetaan fii mooy solution bi. ko jaaxle ko jom ku bëgg rek ku bëgg dëggu pare quoi. ah yow moom du laaj ngay bëgg ñoom ñooy bëgg rek. du alal du leneen quoi. <laughs> waaw man yow du jar ngay bëgg ñoom man yooyu intéressé ma quoi. nii nii ci biir. su may intéressé man. te hmm. <laughs> am naa compte bu yàgg. Hmm. parce que maa ngi si réseaux sociaux yi def ay interview pour yenn ñi ndax jiitalu ma xaalis. maa ngi soogee am man compte. Instagram Instagram. même mu ngi barke rasul ki may dimbali waxaatal sa kii damay bañ. nee Instagram ban ban mooy valable bi pour ñi lay pirate ñu xàmmee ne bii moom du dimbali problème original baa ngi nii. valable sax boo duggee sax daan la ko wan. Hmm. waaw waaw moo nekk ni kon 10 000 problème a nekk nii bii moo Instagram moom gis ngeen ko. mais problème lan moo ci nekk ba ñu bëri di ko xëccoo problème. c'est que xam mm-hmm. xalaat. Mm-hmm. duñu kere lan moo indi turu dix mille problème dix bi. dix bi li ko indi euh, benn tur boo xam ne ni pour dénoncer des problèmes yoo xam ne nit ñi ñu koy dund. Mm-hmm. un rapport xaw ma philosophie la quoi. Ah. li nga tudd ngay jàllale. ne comme la carré sama copain néew bi dafa ñëw takk per mais gars yi boo xam ne ñemewoon loolu. mais néew bi pour xamal ni gars yi dee am na parce que xala xala moytuwul xam nga nit ñi tamit. dañ am seen programme yàlla tamit. ah kon rapport yi néew bi moo ci sa xarit quoi. ñoom bari naa say xarit. am naa si ñeneen comme kan tudd say xarit ci rapport yi ñu xool. ñenn naa si ñoom dip wala ñoom. Canabaas ay gaanu ga mais tamit game si biir game bi la quoi <laughs> affaire bandi la quoi. affaire bandi la daal ku yebul seetal leen. voilà noonu tamit quoi si mbokk nag ko amu si gaal mais amu si noon tamit quoi. <laughs> mais yow li nga sañ a wax kenn du la plainte ah. plainte mais am ku la plainte du xam fu mu koy ko si yoon. Mm-hmm. man boo am plainte boobu boo defee bu ñëwee moo wax loo xam ne sax yow da naan déedéet te yaa ko def <laughs> man man su ma songee rek am na leneen lu des sa waay. <laughs> Eh. yal na yàlla dooy xool sutura. amiin moo tax xool Youssou Ndour xaw ma yiw. waaw ah. way ko quoi. Youssou guddi bu jig sama ko nekk bëccëg. Mm. mais léegi xoolal ma jëlee nga xoolal virus bi ma dañuy tëdd sax di gént ay masque ay omo ay coton gel changé leen si sa ko indi leneen wax nit ñi quoi <laughs> cotol danañ raxas jaay doo raxasu booy ñun dañoo raxasu waaye suñu loxo yi sax ñu xoolee ko raxasu sëlmu xam nga gànnaaw noonu def kii affaire bi ko doon sël moom la ngeen sël moom waaw bëri nar a yàqu bëri nar a yàqu waaw parce que dafa tiir quoi mu ne am day raxas day sëlmu mu ne ko baax di dee daf mel ne nga ne yéen sedd yi est jig nañu sax affaire yi dafa tamit am nga sa xarit boo xam dafa sedd yi baa du ko indil problème ah affaire yi tamit gars yi ñu ngi koy def de ñu ngi def li gars yi def hmm. mais état bi nanu kere yeneen solution yoo xam ne ni may ñaan may ñaan tamit ko yenn politiciens yi hmm. ngir yàlla bu nu politigal yi hmm. na politiciens yëpp téye seen làmmiñ yi ngir yàlla ñoom seen lépp campagne ba pare ba pare xam nu ma jaaxal ah. la moo tax bi élection yi Ah. élection bu ñëwee ñu génn ay kap ay loo xaaj la. waaw ah. ñu tas ko si nit ñi. waaw mais xoolal gi maladie bi am na de. maladie bi am na de mais ñoom ñoom sax gën di xoolal mais policier mooy xaj xam lu gën a bon. jàpp euh. nañu ay mbaam teg sa bopp nit. Hmm. politicien lu gën a bon. yow ci xarit de. am naa si xarit kooku di yàlla am naa si ñaar quoi xam ne samay gaano muy monsieur le maire Bamba Fall. ak si Ahmed Tidiane Ba Messi. Mhm. samay gaañ loon quoi. Mhm. tu vois euh, sax ma déggee affaire ñu naan seen diggante mais damay maanu seen côté quoi mais ñoom ñaar. waaw ah. ku si wàcc yoon moo ko. ku ci wàcc yoon nga ko. xam nga gaañ parce que gaañ dëmb la. <laughs> gaañ dëmb la. yeesaay quoi mais ngir yàlla ku si yor moyen boo xam ne ni yaa ngi si quartier si koñ. Mhm. xaar gënal nga jënd. comme ni ko politicien defee chaque élection chaque campagne. ni ñoom dañuy jënd ay loo yu bëri. waa gaare kaar deux mille cinq mille dem campagne ñëwaat. mais loolu pourtant ñoom loolu loolu loolu instant bi ñun nag instant bi loolu ñu soxla ñu dama soxla nga ñëw si koñ bi génn ay masque taxaw séddale omo kotal nga séddale def ko jaamu si yàlla. Ah, mais yooyu yaa ngi koy gént nag ay omo ki gel ak yooyu def mais omo bi sant bi danoo gëmloo omo. <laughs> gel eau a dañuy tëdd sax xool nga génn ko ne raxasul <laughs> raxasul raxasul takkal masque. <laughs> même débat ngir yàlla fekkee amu leen xalaat boo xam ne mën na teg ay solution pour ñu sensibiliser nit ñi affaire bi xam lan la ah. communication la wax day ànd ak dara. nit ñi ñoo sonn si ay wax ak wax wax wararara da ngay da ngay nit ki boo ko bëggee mu dem mu mu mu mu développé wala mu kii jëriñ mais ñëw sax am sa doole xar si mburu mi. mais chaque fois nga di ma amee day wax ab ah, sama bopp yi day day mujj sax saturé day mujj day mujj ma gisaa ni boum explosé jaar fa dee. wax day ànd de parce que wax rek yoru réew. yow nooy dundee vingt heures bi vingt heures bi da ngay foto ci sa kër ci force. damay def damay def comme gars man avant a gi moom nu muy demee noonu. mais ñoom ñu ngi noonu rek seen xaaj en tout cas wax na ne ragal yàlla. waa léegi nu ñuy def ku wóor nii. ñu bëgg laa tëj ay ndogu ay mbësal ay xëdd ay kii yooyu nit ñi daan génn. ah man maa ngi déglu état bi ba xam moom man motukaay moom la si jël quoi parce que dégguma ñosu loolu man chaque ngoon ma dégg fa ministre bi génn la ka communauté a paquet seen wa quarantaine wani ne cent douze personnes dëkk bi mu quatre cent morts dëkk bele euh. dëkk bi ni orsevé euh, évacué mais vraiment bàyyi sonn nañu quoi billaay mais ñun nous sommes des xoole ki Sénégal ñun dara jaaxaloo parce que duñu ah, dañoo jël si salté magasin salté <laughs> dañoo gis di raam di maq suuf. Euh. am na ay réalité ñun dana am ay réalité euh. ku gëmul sa réalité nag yaa xam. yaa xam boo ko weddee da nga xool koo xam ne état bi mu ngi dund Europe. boo ko ndéewu Sénégal léegi léegi fu amee un an deux mm. <laughs> jox ko ndoxum rëbbi na ko bu kenn naan di feebar. <laughs> man dana koy naan giix te si xol alhamdulilah loolu yàlla la. gars yi wax dëgg yàlla bàyyi. dëgg la xoolal feebar bi am na de sa waay bu leen nu rey am na lu ci bokkul daal bu leen nu rey bu leen rey sénégalais yi bu leen rey sénégalais yi sama waaj yi wax nag baaxul nag am na ba mu fa àggee ñun ñu wax ko mais danoo sonn si omoog masque ak orsebet dégg na leen wax leen leneen ak vingt heures ak dix huit heures mais nan am ay solution sax teg hmm? ay solution teg ay solution sax quoi dañuy wër feebar mais ñoom wa léegi sax ñoom waa même sax bu ñu mën jox population bi ah. échange échange luyaas da ngay fay ba léegi. da ngay fay ba léegi courant da ngay fay. waaw ah. dara changé wu ah. dara changé lu dul omo orzabet. mais est ce que nit ki dina lekk <laughs> ko lekk de. mais dëgg la. dix mille dafa dof. dafa dof mais waxuñu waxuñu la lay wax. parce que wax ji feebar moom mënul dugg si nopp yu mais ni ko feebar nag yaa feebar sa feebar sa bopp nanu dimbale citoyen sénégalais yi. ndeysaan ñu dimbale baadoole yi. Mhm. tu ñu xool nan nan nga gis tamit sénégalais yi ak 10 euh, 000 problème ñu nekk extérieur. bitim réew nga xam na lu bari ñoo ko doon indi ci réew mi. Mhm. ñu dem ba nekk ci tuuti jafe-jafe. ci moment bi gars di leen daw. gars yi di leen dem di leen daw ba pare di di naan Moodu Moodu gàllaajeem yàqu na di leen indil problème daal façon yooyu. yu ñaaw yooyu. loolu du koy sénégalais la du koy sénégalais mooy jukkee koy baadoole. du koy baadoole mooy mhm. jukkee koy du koy jàmm mooy du koy traître jikkoy mm-hmm. traité mooy nit koy war mm-hmm. naafeq tey man am naa ay am naa ay mag yoo xam ni ñu ngi kaaw ba maa ngi leen nuyu ak sama nuyu leen tuddal ci tur ñu ngi Europe quoi tuddal ñu ngi secteur di Europe lu koy seetaan ba euh, du nuyu sama mag Luuma Ndiaye Luuma Ndiaye ban dëkk la nekk waaw mu ngi waaw mu ngi Allemagne Allemagne fan la fan la nekk Cologne wala ah. ah non non non boo limee ñoom te limoo ñoom tamit xam nga rek. non tegtal di nga nekk fu la neex tuddal. fan la nekk ci Allemagne. Stuttgart. waaw andaa ñuy kaw man xamul foofu quoi. <laughs> Ah. ñu ngi foofu. Mm-hmm. te ñoom ñun suñu waa gàll man boog ñun dañuy dimbalee. Mm-hmm. wax dëgg yàlla muy samay mag muy samay jarbaat ñëpp ñu ngi foofu man dañ may may parfois di ma sarax di ma dimbale ak yeneen ñoo xam ne ni xam naa leen. te ay këccëb nekk Europe. këccëb waaw këccëb yaa ngi këccëb day day day day métti lu lu ko métti lu bari day wax. waaw waaw non kooku kooku kooku sénégalais la moom lu am day jóg. Hmm. topp si kaani wax sénégalais. Hmm. te am na ay dàll yoo am sax ma ko may quoi moo ma joxe ab yi ay dàll waaw jox ma ko quoi. këccëb kon 10 000 problème mi ngi lay gërëm ah. a waaw bu baax a baax. di wax rek ñun li ñuy wax yëpp li ñu si jublu rek ngir yàlla mooy mooy di fàttaliku sénégalais yi. Hmm. pour xel yi si yàlla. xalaat quoi. waaw te jàppalante quoi. Mm. ba mu ñu mujjlante ba pare temps dama gis lu garaaw mais si rajo xoolal sociaux yi taf taf ñu filmé benn affaire web publié. Mm, ñàkk yéen ma ne surtout. waaw may wax benn affaire monsieur jaw Këccëb jaw Këccëb premier xool couvre-feu naa Baye munu am lu mel naka benn affaire bu mel noonu fépp la quoi nga génn sa appareil di filmer sa sa waa koñ di ko publier si internet bi. nanu yàlla may wu suturoo nanu am suturoo man su ma gis sax ngay def lu bon lu ñaaw du ma la filmé mais les gars yi da ngay nekk fekk ñu nekk fële di di la filmé da ngay xës ba ñu teg doo si mën dara nanu bàyyi loolu quoi hmm. nan dem liggéeyi nanu xalaat quoi nanu jàppante te déglu te delloo xeetam si yàlla hmm. ñu nga rab Tektal TV kon ñu defaat la neen waaw waaw waaw Tektal TV rang muy Tektal TV hmm. maata bi Tektal TV tagala bàyyi lu teng bi Tektal TV rang muy Tektal TV kunkang cincang cungcang yi ha hu ha jung rang li ay chinois la xanaa am na chinois am na chinois am na parce que chinois yi ñoo fi ñu man dama ko teel wax de dafa julli di amul nanu xalaat rek julli lu leen def amul lu nu deful julli di sama waa ji amul dafa ëpp yi du bagage su ma sàmba du bagage su demba italien yi ñoo lépp moyen téeméer jënan ëpp la xaalis mhm. seen wa docteur bi ngeen a ngand moom njëkk dee mhm. nga dem Chine ñoo lépp moyen ten docteur yi te am na su ñoo am sax bàyyi doon mujj wa ko dem ni xam ne lii lan la mais léegi lan moo tax ñun le président Macky Sall moom tant que tubaab waxul du appliqué am na ñu religion ñun am na fu ñu toll ñu ñëw jot suñu bopp ba pare bàyyi aide yi ñu joxe ni aide yi état na nga man da ko joxoon armée bi ñoo ko doon séddee parce que politiciens yi ay sàcc la ñu dañ koy politiquer dañ koy campagner joxol Samba bàyyi ma demb non na ñëpp yem quoi. Mm. état moo ko génnee Macky Sall mu ngi def lu ko mën maa ngi koy ñaanal yàlla di ko encouragé ba pare tamit di wax tamit ministre bi ngir yàlla. yaa ngi ñu sonk tamit si ay masque waxal leneen quoi jëriñu Sénégalais yi monsieur le ministre. Diouf Sarr Diouf Sarr maa ngi nuyu nag mais sax danoo sonn si takkal masque omo ortobel waxal leneen loo xam ne ay solution la quoi mais de dëkk bi daa tar gars yi amul ah, gars amul hmm. am temps bi amul dara. amul dara mais sa gars yi nag ñoom ñu ngi noos ñu ngi am seen kër yi sax ay xola ay carte gab mais baadalo mais naka tentaw mooy xool ma saa ma reere sax ba desutu ceeb boo xam ne añ la woon ma jël ko dóor dóor si ba dellu naan tëdd saa mu tëdd sax dara. Ah, mais mais kon koo takk ci condition yi lay dund wala. ah koo takk. non ya bu ma dund ba yàlla tere ba gis nga àdduna. Hmm. lu ñëw rek ndax wërsëgam. ah mais yow man bëgg ma dund loo xam ne nii dama ko a continuer. ah ok man. kon daal li ma bëgg daal ku ko am solo rek. docteur moom bari na xarit yu bari. xariti ibaadu yoo xam ne que sell nan man am naa ñu ma xam ñu bari bitim réew petit moom moom Henri Camara du centre. Baye Manche moom ci boppam lay nekk kon daal <laughs> waa Jurbel la euh, Ibrahima Keita moom xanaa da lay wutal teere ndar ak yëpp wutal la fa rek ak soxna téel ak mu la jetti ko benn yoon kon kon daal yéen ñi nekk bitim réew man seen bopp Effenberg yi dix mille problème a ngi nii célibataire la te bëgg na cee génn balaa deux mille vingt bi jeex amin mais ngir yàlla Sénégal yi nga xam ne ñu ngi daw Modou Modou yi ak bool bool yi lii balaa la nit ku ñuul dool ko fi de yéeféer moo ko fi dugal te yàlla moo mer mm. nadari bu xaali naa si la ko yatafakkarun ku jàngu nag nga fexe nga dem jàngi mm. dañu sonal roñ muy kaw kon léegi Tektal TV dinañ indiwaat euh, dix mille problème dina fi sakkan bu baax compte Instagram bi dix mille problème waaw ñi lay prendre ah. moom ngay seen nii gis nga ko ne yow mi koy prendre nga xam ne original baa ngi nii dix mille problème mm-hmm. léppam ak Tektal TV benn la fii lay waxee xalaatam fii lay kii kon Tektal da ngeen abonné ñu abonné Tektal TV waxal. waaw da ngeen abonné da ngeen abonné tamit. abonné bi duñ ci fay dara nag. bés bu rouge bi waxal. waaw da ngeen abonné xoolal. waaw bésal bu rouge bi doo fay dara. waaw bésal cloche bi. TV kii ku Tektal TV. <laughs>